الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه نيجي سانت بارم سبحانه وتعالى جلي كان النبي صلى الله عليه وسلم لني مجموعة الطب والعلاج أد أترى مجموعة تناصح لني مجموعة علاج بين يديك لني مجموعة يب muy groupe santé yépp ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq defal ñuko defal ko képp koo xam ne yaa ngi déglu suñu audio tey nag ñu dikk ak yéen ci fruit bu am solo fruit boo xam ni meññeent boo xam ni ci jamono yiñ toll période biñ toll mu ngi tàmbale am di tàmbalee ñor muy fruit boo xam ni eh, am na njëriñ lool am na njëriñ lool ndax ay ferñeent yu am am solo mi ngi ci biir fruit boobu moom mooy màngo eh, mango nag nekk garab goo xam ni muy meññeenti beeg xas baag xob yàgg lépp ay njëriñ yu fees dell dell moom moo ci nekk boo xoolee nag mango dëkk yi mu am bari na lool rawatina suñu dëkk dëkk bi nga xam ne lañ dëkk muy Sénégal bari na fi ba ci dëkk africain yu bari ba ci dëkk yi nga xam ni dëkk yi bitim réew am na ci dëkk yu bari yoo xam ni am na fa lu mel ni Inde ak yeneen yi dëkk mu am ay variété yu am solo mu am ay façon mango yu bare bari ay xeet yu am solo. yoo xam ni euh, ci ay tur yi wuute lañ koy tuddee fii ci suñu réew euh, boo dee xool màngo nag ci ay ferñeentam am na ay ferñeent yu am solo yu ci nekk ferñeent yoo xam ni ku ci nekk war nga ko xam mu nekk loo xam luy jëriñ doomu aadama la ci wàllu wérgu yaramam ndax boo xoolee màngo ci ay vitaminaatam boo xoolee am na lool vitamine B ak vitamine B2 am na potassium am na magnésium am calcium am phosphore am vitamine E ak vitamine K loolu ci ay ferñeentam yu am solo yo xamni ni am na ko euh, mango bo xamni mango bu bu ñor la bo xolé am na ba 60 milligrammes ci vitamine C euh, ba vitamine A am ci solo lool bu dé mango bo xamni mango bu ñorul la riche na ci vitamine C waaye néew na ci vitamine A bu mu am ak glycide boo xam ni am na ko euh, boo xoolee moom mango ci boppam euh, ay euh, mbiram ba tey ci wàllu njëriñ mooy boo xoolee ci wàllu bët luy leeral bët la lu efficace sa ci leeral bët moom mango dafay leeral bët ndax vitamine A bi ci nekk nga xam ni dafa am solo lool nga xam nit ki manqué ko mën na indi bët yu lëndëm mën na lëndëmal ay bët waaye mën na indi jafe-jafe ci wàllu li nga xam ne moom mooy nerf optique yooyu nga xam moom mooy leeral bët kon ñi nga xam ne seeni bët dafay faral di lëndëm ñam am jafe-jafe gis nañuy jëfandikoo fruit bii nga xam moom mooy mango ndax vitamine A bi ci nekk te mu am solo lool euh, bokk na ci ay njëriñam ci ay Eh, mbir yoo xam ni yàlla subhanahu wa ko ci ciy dëxëñ ci ay mbir yoo xam daf ko làmbool rawatina li nga xam mooy xollit bu màngo boobu xollit boobu nga xam ne moo ne ci kawam moom màngo bi am na ay njariñ yu bari ay njariñam nag bokk na ci lu efficace ci li ñuy wax jaare mooy al ishal mooy biir buy daw lu efficace la ci jaare infantile mooy istihal qawi mooy biir bi daw bu jéggi dayoo xoolit yooyu su ko nit ki jëlee baxal ndox ba mu bax rek jël xoolit yi def ko ci euh, teggi ko def xoolit def xoolit ci biir bàyyi ko mu yàbbi mu di ko naan luy gaaw la ci arrêté biir buy daw waaye lu baax lool la ci ñi nga xam ni dañuy amee li ñuy wax wàllu colique métti biir lu ci efficace lu ci baax la lu ci baax a baax la kon ñi amee métti biir wala biir buy daw suñu koy jëfandikoo dafay arrêté li nga xam moom mooy bii buy daw waaye it euh, xolit yooyu nga xam ne dañoo baxal ndox ba mu bax def ko ci euh, euh, teggi ko def ko ci lu baax la ci nettoyé ay góom ba ci lakk-lakk lu ci baax la moom xolit yooyu noonu lu ci baax la ba ci góom yoo xam ne dafa nekk ci gémmiñ ndox moom bu ñu ko góoxee daal di koy téye lu yàgg luy wéral góom yooyu nga xam ne mooy góom yi nekk ci gémmiñ ay xobam nag bu njeex ay njëriñam lu am am solo moo ci nekk ndax xobam yooyu dafa bokk ci ay njëriñam yu am solo yu am solo lool mooy moom antioxydant la antioxydant la lu jëm ci xeetu feebaru bactéries yi nga xam dafa am doole muy doomu jàngoro yi nga xam dafa am doole ak xeetu feebaru cancer yi ba ci wàllu xol lu ci efficace lu ci baax la moom ay xobam bokk na ci ay xobam ay njëriñam pour faj faj yenn feebar yi rawatina yaram muy tàng moom lu ci baax la lu bax la ci yaram buy tàng fekkee nit ki dafa amee fièvre alxumma moo xam sibbur wala yaram buy tàng xobam yooyu mu di ko naan ci baxal ndox ba mu bax rek teggi def ci xob yi di ko naan lu bax la ci yaram buy tàng comme lu bax la ci biir buy daw comme ni ma ko waxee sànq waaye lu bax la ci ñàkk nelaw koo xam dafa am lu ñuy wax insomnie mooy ñàkk nelaw nelaw di yeewu lu bax la ci mu koy nelaw loo waaye lu baax lool la ci asma ñi am asma ak bronchite ak vous suñu jëfandikoo xobu mango surtout di baxal ndox ba mu bax teggi def ci xob yi ba mu yàbbi di efficace la ci loolu nga xam ne moom mooy wàllu wala asma wala li nga xam mooy xeetu bronchite wala faral di crise ci di euh, lu la ci pulmonaire infection yi jëm ci pulmonaire euh, faral di am ay infection lu ci baax lool la pour désinfecter infection yi nga xam ni jàpp na pour yi lu ci baax la bokk na ci ay njëriñam yu takku moom xobu màngo mooy lii di pression sanguin bi maanaam mooy dafay eh, yaatal eh, fi nga xam ne foofu la deret ji jaar tuyau bi nga xam ci la deret ji jaar muy vaisseau sanguin yi koy yaatal waaye da koy yombal waaye dafay régler pression sanguin bi sanguin bi maanaam ni deret ji dawee ceen yaram koy régler ba mu yemamaay dafay renforcer li nga xam moom mooy vaisseau sanguin mooy vaisseau yi deret ji jaar mooy tuyau yi deret ji jaar da koy jox doole ba deret ji buy jàll du am benn jafe-jafe moo tax moom mu efficace lool ci ñi amee hypertension artérielle ñi seen tension di yéeg lu ci am solo lu ci baax lu ci gaaw la ci tension bu yéeg bokk na ci euh, ni ñu jëfandikoo xob yooyu ndax ñu bare ba dañuy laaj ni ñu koy jëfandikoo dañuy wax ci ni ñu koy jëfandikoo ci anam bu digg dóomu Euh, ki nga xam ne dafa bëgg jëfandikoo xob yooyu mën naa jël lu tolloog liitaru ndox mën naa jël lu tolloog liitaru ndox wala genn waa ndox mën na baxal genn waa liitaru ndox su ko baxalee ba mu bax euh, mu jël mu teggi ko jël lu tolloog ñetti xob ñetti xobu mango su jëlee ñetti xobu mango rek euh, fekk tegg na ndox mi daal di ko ci def ub ko bàyyi ko benn waxtu mu daal di koy segg su ko seggee mën na xel di digg kaas suba ak ngoon di ko jëfandikoo loolu pour xeex. lépp loo xam ni dafa jëm ci yaram buy tàng ak ñi am infection urinaire moom xobu mango dafa efficace ci infection urinaire mooy ñi nga xam ni bu ñuy tuur ndox benn day metti wala bu ñuy tuur ndox seen ndox dafay metti wala fii tuur ndox bi jaar dafa am ay infection yooyu lu ci baax la dafay nettoyer ay rein lu baax la ci ñu amee problème mu rein problème mu réunion ba ñu am calcul rénal mooy xeer yi nga xam dafay nekk ci wàllu rein wala ci vessie bi muy almasana wala ci almiraara muy wextan bi muy bil bi lu ci efficace lu ci baax la pour seeyal xeer yooyu bokk na ci euh, xobi màngo yooyu ay njariñam yu takku mooy di ko def tee comme ataaya di ko naan bokk na ci ay njariñam comme ni ma leen ko waxee bronchite muy lu jëmee ci wàllu nooy moo xam sëqat la wala kuy fat wala asma la lu ci baax a baax la wala sax koo xam ni dafa am wanaas guy metti moo xam angine la lu ci baax a baax a baax la lu ci efficace la bokk na ci ay njariñam it ñi amee problème stress mooy bopp bu ubbu ñuy jëfandikoo xob yooyu di ko infuser di ko naan lu ci baax a baax la bokk na ci jigéen ñi nga xam ni dañuy am problème mu infection vaginale mooy li ñuy wax euh, iltihaabul mahbala wala jafaaful mahbala moo xam infection vaginale la wala li ñuy wax sécheresse vaginale mooy jigéen joo xam dafay sentir kanamam day wow maanaam kanamu sëyukaayam dafay wow wala mu yëg ni eh, dafa am infection ci ci kanamam eh, lu ci baax la rawatina bu baxalee ndox ba mu bax rek bu bax bu baax mu teggi ko def ci xob yi bàyyi ko mu yàbbi ci ndugaa bi noonu mu toog ci maanaam def ci bain toog ci lu baax la ci infection yooyu nga xam ni mën na ko am ak ay perte blanche yoo xam mën na ko sonal su koy def noonu mën na ko dindi bokk na ci ay njariñam ci xobam yooyu nga xam ni am na solo lool mooy ñi amee jabet xob yooyu baax na lool lool sax ci suukar bu yéeg muy hyper glycémie mooy suukar bu yéeg lu efficace lu ci baax la ci taux sucre boo xam dafa yéeg mooy ko xam suukar bi yéeg na xob yooyu mu muy baxal ndox lu toll ak bu amee litre ndox rek mën na baxal ba mu bax bu amee lu toll juróom-benn xob ba ci juróom-ñaari xob su ndox mi baxee ba bu baax ba wàññax mu teggi jël juróom-benn ba juróom-ñaari xob. daal di koy def bañ koo baxal mais bay baxal ndox mi sotti ci bàyyi ko mu yàbbi benn waxtu ak genn wàll mu segg ko di xel yi digg kaas suba ak ngoon lu baax la ci wàcce sukkar bokk na ci ay njariñam moom xobam yooyu euh, ci ay njariñ euh, di ko jëfandikoo lu baax a baax la ci ñi nga xam ne dañoo yëg maanaam yax yu metti koo xam dafa am yax yu metti maanaam di sentir ay yax yu metti wala yax yi karamp ndax moom am na calcium bu am solo moo tax manqué calcium bokk na ci li muy waral mooy yax yi crampe euh, mën na indi gaaw a damm waaye mën na indi jafe-jafe yi jëm ci wàllu wàllu yax euh, xooxam yooyu nekk ci biir nag am na solo lool ndax xooxu xooxu màngo ci lu am solo lu bari ay njariñ la moom it ndax xoox boobu noonu suñ ko weeree ci keer ba mu fendi wow ba ci keer ba mu fendi ñu dëbb ko ba mu mokk mu nekk sunguf di ci jël kera euh, café moy kuddu Nescafé café diko bolé ndox mu tang lu rey ay saan la surtout saanu teeñaa muy saan bu mag boobu lu ci baxa bax la bokk na ci it li mu mën def moy jigéen ñi nga xam dañuy amé infection euh mo xam euh di yek di am ay perte blanche maanaam perte blanche bu ko waxé moy jigéen jo xam dafay sentir ndox mu tang di génn ci kanamam euh bolé leg leg euh mu yek kanamam di xasan rawatina léeg-léeg bu sëy borom këram du yëkk jafe-jafe ci wàllu woowu lu ci efficace la bokk na ci ay njëriñam xobam yooyu it lu baax na ci trompe yi bouché mooy jigéen joo xam ne trompe yi dafay bouché wala dafa am problème mu ovaire surtout jigéen ñi nga xam dañuy am lu ñuy wax lu wàllu jafe-jafe ci wàllu over ñi nga xam ni seeni ovaire production bi ñu ci hormone estrogène dafay néew ba tax na mu leen yóbbu ci maanaam kanam guy wow bu ñuy sëy muy metti wala jigéen ñoo xam ne dañu am trouble ci wàllu règle ba ci règle douleur jigéen joo xam buy gis règle day am jafe-jafe buy gis mbaax day am métti biir bu koy sonal wala problème mu ndigg lu ci baax la tey luy gaaw la ci wàccee li nga xam moom mooy règle bi te du am benn jafe-jafe kon ay mbirum am na solo lool kon loolu lañ leen indil ci gàttal ci mango ay xobam ak li nga xam mooy mbiram reenam it noonu la mel moom it lu baax lool lool lool la ci ñi nga xam ne ñu amee problème mu yàq ak problème mu nerf problème mu sidik lu ci baxa bax la kon li mom moy ci gattal ci wala rek njariñam te it euh, mom mango dafa am somnifère ñi am problème mu nelaw di lek mango len bax te it dana joxe tay, joxe yaram lu am am solo la xana di téré rek ñi mbañ di jëfëndiko mango bu xay moy mango bu ñurul di ko mëna indi ay jafe-jafe surtout ci yenn problème mu colique yenn metti biir ak yenen ak yenen mëna ko indi euh, yoy lañu wax mbokk yi Euh, seen mbokk docteur Abou Anas moo leen doon defal audio bi di ko baaxee euh, képp koo xam ni yaa ngi bëgg di jariñu ci wàllu sante euh, numéro numéro bi 77 la 534 99 76 numéro la numéro whatsapp la wala 77 592 86 86 moom it numéro whatsapp la ba tey wala 70 767 15 07 moom it numéro la waaye numéro whatsapp la yii yëpp. Euh, kuñ ci war rek mën nañu jot incha allah ci ñu mën a jàppalante wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.